قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الإرادة بن لقد اللغم dañuy wax ne jëf la juy xew ci xol nit ki day am jamono joo xam ne day yëg ne dafa war a dem ci yàlla adduna sépp soof ko lu bari soof ko nga yëg ne danga war a dëpp yëg ne sa ëllëg war nga ko waajal foofu jëf jooju ak yëg-yëg boobu ci xol bi loolu la ñuy wax iraada mooy bëgg gi nga bëgg dox jëm ca yàlla booy tudd murit nag mooy bis bi nga jëlee décision wu dëpp wuti yàlla bëgg bëggub bi yàlla nga jël ko teg ci kaw bëgg-bëgg yi nga amoon nga xam ne dangay ngay seel say bëgg-bëgg ci biir bëgg-bëggu suñu borom ko wa taala nga xam ne dara ñuratu la lu may jëfee ndigalul suñu borom tabaaraka wa la jaare ko ci ndigalul sëriñ bi nga xam ne moom nga jébbul sëriñ juba dafa wax ni wasful muridi tarkuhul iraada li wajhi man yafalu ma araada murid bu ñu la koy melalal dañuy wax ne mooy ki nga xam ne amutu bëgg-bëgg nga xam ne moom amut lu muy bëgg li yàlla bëgg rek mooy bëgg-bëggam li yàlla bëgg nag buñ la ko doon gàttalal mooy li sëñ bi bëgg mooy li yonente bi alayhi salaatu wasalaam bëgg idil muridu laa yuridu abadan gayra rida rahmaani murid mooy koo xam ni ngërëmul yàlla rekk lay dàkk bis ba muy tudd saadiq nag walla ak sidq bañ ko koy melale moom moom jëf jooju walla jëmm jooju mooy bu demee ba léppam dëggu imaamul Ghazali dafa wax ci Ihya ne nit ki mën naa nekk murit waaye bala ñu ko tuddee saadiq biiram ak biti day dëppoo biiram ak biteem day dëppoo ay waxam dëggu yéeneem ak xolam lépp sell te la ca ne dëggu pas-pasam ci bëgg jëf lu baax nekk pas-pas bu dëggu mu jéem a wut itam wutin wu dëggu yoon yu muy jaar ba jëf jëf yi mu yéene ci xolam ay jëfam li feeñ li nëbbu lépp nekk jëf yu dëgg nga xam day dëggu moom du wane lii nëbbu safaan ba ca biiram bis bu dëgg googee nekkee ci moom lañ koy tuddee saadiq nga xam ne kon yëmul rek ci dëggu làmmiñ imaam Zakariya al Ansaari imaam Zakariya al Ansaari day wax ne ak dëggu dëgg dëgg bala ñu ko melal taalibe bi xol bi day dëggu jëfam dëggu làmmiñ wi dëggu maa ak dëgg feeñ ci léppam ñu doog ko tuddee ku dëggu cheikh imam abul qasim al qushayri ci risalaam bi moom teqale na ñetti baat mooy sidq mooy jëmmi melaw dëggu ak sadiq moy ki melowoo ak deug ak siddiq nga xamne dara daraja la wax na ne siddiq moy sa bir ak sa biti yam moy li nek sa bir di feñ ci sa biti waxtu wone sa xol la ca ne di feñ ci say jëf ak sa jëflante sadiq nak neena kiñ koy tudde moy ki nga ay waxam dafa deug koku dañu tudde sadiq nga xamne ay waxam lu mu la wax dëgg la nga faye ko bor siddiq nag nee na mooy koo xam ni ay waxam ak ay jëfam ak ay meloom ak ay axwaalam yépp dafa maase cuuboo ci genn cuub muy cuubug dëggu muy léppam dëggu bu àggee foofu nag lañ koy tudde siddiq nga xam ne moom daraja la bu kawe ndax bu ak nubuwa jàllee siddiqi ak siddiqiya moo ci moo ci topp loolu li koy firndeel mooy li suñ borom wax ne ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا li ma bëgg a indi foofu rek mooy gis nga ba yeneen yonent yi jàllee siddiqin yi la ci teg kon siddiqi ya moo tax borom xam-xam yi wax ne moo topp ci daraje ak nubuwa bu nubuwa jàllee mooy ak yonent bu jàllee rek siddiquun yi ñoo ci topp mooy woy dëgg laa kon yi nga xam ne ak dëggu dafa dañoo mujj di ak di ak dëgg goo xam ne dañuy dox ci kaw suuf moo tax nga gis sunu borom tabaaraka wa taala di digal ñi gëm yàlla ne leen dee leen wër ñi dëggu ngeen di ànd ak ñoom ya ayuhan ya ayuha alladina amanu ittaqullaha wa kunu maa ci gàttal loolu mooy li aju ci baat bi mooy iraada as-saadiq nit ki dana nekk murit te nekk gut saadiq mooy dëggu gi amagut bis bu demee ba ay waxam kay jëfam ak léppam dëggu mu doog a tudd nag saadiq su ma la ko bëggoon a gën a leeral dama lay wax ni la xam ngeen ne islaam ñetti xaaj la islam jëpp ñetti xaaj loolu ni mu feeñee ci xadisu sayidna jibril bi nga xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko te sayidna jibril ñëw di laaj yonente bi lan moy Islam yonente bi leeral ko ko mooy nga seere baati seere yi ne laa ilaha illallah allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallama teg ca nag di julli waxtu juróom di Eh, joxe asaka tey woor weeru koor te aj mag juróomi ponk yooyu boo ko defee yaa ngi ci islaam mu ne yónn Seydina Jibril teg ca laaj ko lan mooy imaan yonente bi leeral ko ponki ngëm te mooy nga gëm yàlla ak malaayka yi ak yonente yi ak téere yi ak bis penc ak dogal foofu boroom xam-xam yi dañ fee ballalu wax ni loolu ay maqaamaat la mooy nit ki mën a nekk ci islaam te duggagut ci maqaamam iimaan nit ki mën a nekk ci islaam mooy di julli di yi nga xam ne ay cëra koy def mu di ko def waaye ngëm duggagut ci xol bi day julli day woor day dem makk di joxe asaka waaye xol bi gëmut yàlla gëm gu wér loolu li koy firndeel mooy aaya bi wax ne qaalat al aaraabu amanna qul lam tuuminu walakin qulu aslamna walamma yadxuli liimaanu fi qulubikum ay saxaaba lañ yu waxoon yonente bi ne ko ñun dey gëm nañ yàlla yàlla wax leen leen yéen gëmagu leen xoolu aslam naa mooy ñun ay muslimoon lañ waaye du doonagu leen ay mu'minoona àggagu leen ci imaan ndax imaan muy ngëm dëgg dëgg ngëm ak leeru ngëm duggagul seen xol yéen a ngi jëf di julli di woor waaye duggagu leen ci imaan su demee nag ba sa xol gëm yàlla gëm gu wër ci ngay doog a tudd mu'min mooy ki gëm yàlla ginnaaw booba nag fa la taalibe tàmbale maanaam taalibe bi day nekk ab jullit di jëf li jullit ñi jëf ba xolam gëm bu wër mu doog a ñëw jébbalu si nag di sàkku leneen muy maqaamal maqaamul ihsaan mooy li yonent bi doon wax mooy an taabudallaha ka annaka fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak sëñ Abdourahman da koy firee ixlaas ak taalibe bi mooy ak sellal ndax nit ki mën naa nekk ab jullit di jëf jëf yu bari te dara du ci sell dara du ci dëgg ay sikk dara du ci dëggu ay sikk yu bare bari day dugg ci jëfam nga xam ne buy faatuwaale sikk yooyu buy faatu sikk yooyu lay lay lay faatuwaale boo bu sa xol gëmee nag ci ngay ñëw nag jébbalu foofu nag diggante boobu maanaam boo nekkee mu'min ginnaaw bi ngay la sa xol di yëg ne kat caaxaan jeex na war nga bàyyi caaxaan war nga dëgmal yàlla jëf yi ngay jëf te nit ñi tax nga di ko jëf war nga koo teg fi suuf di jëf ngir yàlla dem ba gis ne da nga war a dëpp foofee nag loolu mooy iraada boobee la nga war def di wutib sëriñ di wuti أبصروا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم